asalaamaaleykum mbokku internet ñi nga xamante ni mooy suñu gaal 24 presse euh, Africa presse 24 ak mbokk ñi nga xamante ni mooy jàmm ji info ak mbokki Dakar Midi ñu am mbégte ak kontaante ak yéen tey ñuy jàkkaarloo ki nga xamante ne tey mooy xale bi nga xamante moom lañ faat muy Cheikh Wade Cheikh Wade moom lañ faat ci li nga xamante mooy ay manifestants ñu taxawatee ay waajuram taxaw ay ñi nga xamante ne tey ay kilifaam ak ñu ngi lay nuyu kilifa gi. ñu ngi lay fay saa waay. Mhm. ñu gis euh, Cheikh ñu ngi ko faat euh, keroog ci ay manifestations yooyu passé mu daal ci ñàkk bakkanam boobu ak léegi ban taxawaay ngeen ci def ak boobu ak léegi tam état bi ban taxawaay la ci jël moom tamit. waaw di leen avant tout rek parce que métti bi moom ñun ñëpp ko boo quoi c'est pas la famille rek quoi Sénégal yëpp la état bi nag laa njëkk commencé parce que déplore gis nañu seen présence fii waaw mën nañu ba bu dee opposant moom gis nañ leen mhm. ndax ñoom ñoo fi njëkk a au moins état bi ñoom ñoo def seen affaire ñoom ñoo indi crime bi yëpp ñoom ñoo fi war a njëkk a teew waaw gis ñu leen ba tey daal mais xaar ñu si ñoom yooyu ñun lu ñuy xaar si ñoom mooy justice bi rek que affaire yi leer quoi loolu la mooy moo important waaw. sa waat ñu far ko depuis dimanche boobu ak léegi depuis lundi boobu ak léegi ñu leen sax dig laa jógee nii parce que fa la ñu waroon dem après dossier yi jox ko procureur mhm. mais daal. dig daaw ñoo yor enquête bi nii lu ñu wax moom c'est rassurant man def nañu ay ay entretien ma ak ñoom jox naa leen coordonnées lépp wax naa leen ñoom nee nañ am naa am nañ sama accord pour def plainte bi ko léegi plainte bi jàll na pour vous pour vous confirmer que ni dig moo yor kii bi moo yor enquête bi nii waaw Hmm. non enquête moo moo moo des parce que bal si bopp la bal moom si bopp la parce que ñoom bañ demee nee nañ faaw ñu jano si wat ko parce que médecin bañ amal rendez-vous 13 heures 13 mhm. heures après agent dig bi bu jotee papier dina dem jox ko procureur mhm. waaw après daal ñoom ñu xool woo ñu kañ lañ tax nañ mën a jël corps fii ak 15 heures 16 heures daal mhm. waaw loolu lañ samagum euh, ban heure nga li nga xamante ne man démb ba ma ndekkee ba pare parce démb lañ ko yëg ba ma ndekkee ba pare même dix minutes. Mm, démb lañ ko yëg. waaw démb lañ ko yëg depuis lundi mais ñu ngi gis image nii mais mënuñu xam ne moom la. Mm-hmm. parce que yow sa xel du nekk si ku mu soree ak ba croisement 22. waaw sa xel loolu na distance gudd la mm-hmm. waaw. nemmeeku euh, si biir nañ ko. ak maire bañ xëy fajar la ma ne Cheikh euh, fanaanu fi. Mm-hmm. par la suite dix minutes après ñu jot coup de fil bi. ñu patiné après lañ dem vérifier au niveau de l'hôpital ñu wan ñu photo bi ak ba ñu bi nag ñu toog xam ni moom la ñu ñu gëm yàlla rek ànd ak suñu sang-froid ñu dem gis corps mais ba ñu gisee corps bi lenn mooy jooyloo mooy bal bi bal si bopp quoi ak loolu citoyen waruñu ko reyee noonu quoi waaw vraiment citoyen ku téye drapeau nga jam ko bal si bopp loolu c'est irresponsable waaw dama waaw ñu mais image yi gis nañ ko dem man démb euh, presse bu fi ñëw yëpp ñun dañoo dal mais tey affaire bi lu tax mu gën ñu met parce que démb image mu ngi daw si presse bi mhm. gis ngeen seen télé ñu ngi koy wone policier bi comme comme un sniper boo xam ni dafa taxaw visé ñaata mètre la visé moo ki mu tiire kooku yorul arme yorul xeer yorul dara nekkul ful buy daw si kawam mu jël gratuitement tiré comme sax loolu est-ce que yor na maana yonul maana koo xam dafa manifeste yor drapeau Sénégal nga tiré ko wàcce waale drapeau boobu loolu militaire lañ koy def kuy xeexal réewam la lañuy rayee noonu mais pas un citoyen qui porte son drapeau waaw. ah di boobu nga xamante ne tey mooy côté Ousmane Sonko ñoom ko ban lañ def. waaw ñoom moom ñu ngi may nemmeeku vraiment ñu ngi may nemmeeku. luñ toll ñu ngi may laaj xam nga démb rek lañ fa mujjee ñëw seen délégation waa PASTEF di remercier encore te pour man loolu état bi lañ ñoo waroon njëkk a def loolu ñoom ñoo faroon jiitu mais waaw waaw ñun du question politique quoi du politique mais xam nga bàqan bi moo ñu gën a politique moo ñu gën a ay mais tamit taxawaay bi bi ak yëg-yëg bi quoi waaw moo si am solo. tey waaw ban message ngay laajte ñi nga xamante ne tey mooy ndaw ñi ñi nga ñu ñu si ñàkk tamit seen i doom. parce que maltraitance moom mënul ñàkk si réew sax mm-hmm. waaw mais pacifique lañ wax quoi mm-hmm. mais ñoom bañ gisee image sax pacifique lañ def parce que koo xam deful ful buy dem si policier yi mm-hmm. nga taxaw ne la comme un sniper visé si bopp nit koo xam bu doon mala sax doo ko visé foofu def ko gratuite loolu jarul enquête sa loolu dafa leer policier bi dafa leer naa ñëpp gis ko commissariat parcel bi la nekk ñun ku ñu joxoon enquête bi ñun suñu jàng sori mais boo ñu joxoon bi ñoo xam kan la loolu waaw di leen remercier rek di wax tamit manifestant moom Sénégal tant yaa ngi fi ne gisoo lu la neex moom am nga droit génn di ñaxtu mais pacifiquement amul yàq amul def dara waaw dal mais am nga droit manifester police bi accompagner la mais pas de tirer sur les citoyens quoi nga demee dig yan façon ak itam bi daal dig waaw waxtaan nañu man père lu ñu wax tamit confiant na quoi comme ñoom nee na lépp moom mu ngi seen loxo te dina leer nañ mhm. incha allah ñoom ñu leen di déglu rek waaw mais ah. juste bu amul sax kii fii ku di nit ku ne mhm. ak sa conscience tranquille boo tëddee war nga àtte yoon bu def loolu moom est mu ngi nelaw est-ce conscience tranquille na moom na démasqué rek léegi mu gën a facile si moom loolu ñoom bu ñu lu jaaru yoon tamit ñoom duñ ko am conscience tranquille parce que bakkan aadama lañ jël waaw loolu lañ loolu la ñu xaar si ñoom comme ñu leeral ko nañ na leer